jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax ànd yéen ci biir RTT TV tey ñi ngi fi nga xam ni mooy caalaan caalaan ku ñu fi seet si grand champion muy Thiatou Limousine mu jege ci bis bu am solo démb digganteem ak ki nga xam ne mooy building drapeau Yves Lamine Cissé la woon bii di quatrième édition bi niñ leen ko waxoon première édition bi gis ngeen ko li simple la ko Sidi Diakhaté defoon ki xam ne mooy rëg-rëg jël ko ci kaw ki nga xam ne mooy Idibou Ngiriñ waa lese bi Tony Junior jël ko ki nga xam ne mooy kaw Siaka Fall waaye deuxième édition bi ñëw ki nga xam ne mooy Alaaji Gaynde bëri ko ak building ki nga xam ne mooy Alaaji Gaynde jël ko ci kaw building troisième édition bi mu amoon ci diggante Arobas ak ki nga xam ne mooy fils de Samba Diaw mais ki nga xam ne mooy Arobas jël ko fils de Samba Diaw quatrième édition bi amoon démb doxoon ci diggante ki nga xam ne mooy caatu limousine ñi ngi dëkkam tey mu ñu ñu jël si ko war a seq moom waxtaan mu jël quatrième édition bi ci kaw ki xam mooy building bu doonoon combat bu am solo doonoon combat boo xam ne amateur lamb yëpp dañ ko doon xaar parce que combat bi dafa amoon enjeu parce que caat limousine gis ko dynamique de victoire bu am solo la nekk parce que dafa tegel trois grands combats ki nga xam ne mooy arène nationale daan ko tey mu jëloon ki nga xam ne mooy adversaire boo xam ne nga xam ne mooy Thiès jaar Morolan ñëw Daaru Alpha jaar fi nga xam ne mooy Kër Samba ñëw fi nga mooy Thialane war seet si ko war a seq ak moom waxtaan mais damay ànd ak sekk rek ñu dem ci biir jël ki nga xam ne mooy caatu limousine jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ci seen télévision RTT TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat bu baax a baax tey ñi ngi caalaan ñu fi seet si grand champion muy caatu limousine mu jege ci bis bu am solo démb fële nga xam ne mooy Thiès hippodrome Ndiaw Makoddu quatrième édition ki nga xam ne mooy Yves Lamine Ciss mu doonoon bis bu am solo mu doon bëre grand combat bi doxoon ci diggante mag ki nga xam ne mooy building building bu muusante ñoom ñaar démb ñu bëre combat bu neex waaye caatu limousine xam ngeen ko ndaanaan la dafa mën a bëre bu bëree mu neex bu tuusee mu neex tey heure buy war mu waree fi nga xam ne mooy caalaan jaar fi nga xam ne mooy Kër Samba dugg Morala ñëw fi nga xam ne mooy Thiès bu la neexee nga ne caat limousine bu kaay baax caat ziar nañ la. waaw ñu lay fay bu baax a baax alhamdulilah ibna si saatu ji bisimilahi rahmaani rahim ñu sant yàlla julli ci yonante bi sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëf a bàyyi Alpha Jombaan jërëjëf a bàyyi Alpha Jombaan a bàyyi Alpha Jombaan caatu limousine caat jóge ci bis bu am solo sa diggante ak building démb ci wàccaayu combat bi ngeen jël combat bi combat bi xawoon na bari coow yéen ñaar bi nga ko jëlee ñu bari dégg naa d'accord ñu woon ci combat bi. waaw combat démb mu nekkoon na combat boo xam ne sama bopp laa ko doon bëri ndax bi ma ko jëlee coow li bari na trop am na ñoo xam woo nañ ma téléphone sax. yëkkatil micro bi am na ñoo xam ne woo nañ ñu ni ma waroo jël combat bi ndax kii moo la ëpp doole. da lay dóor ba nga dee lu ne dégg naa ji ma ni leen fi ma toll ci lam bu ma demee bay sóoraale ay adversaire ma bàyyi bëre ndax building. dama sama jël bi ni ma leer sama ajana bu ma leeroon noonu suba suba tey mën naa dee wallaahi dama yàgg gëm ni man maanaam dam koy daan ndax ndax damay génn àll bi di dajeek ñoo xamante ne ñoo ëpp building foofu damay def ay mbapadu dóor jaxaaw siin boo fa demee mhm. mbapadu dóor moo fa am sama première année foofu voilà njëkk a jëlee nag ci bëre dóor di bëre sept heures sept heures ci guddi ba sept heures ci suba mhm. man xam nga kon ay benn combat du la jaaxal mhm. waaw nga jël ko combat bi bari coow seen première signature contrat ngeen ñëw nga fekk ko seen seewu Thiès nga dégg ay supporters am ñu doon wax moment sa waay jël <laughs> nga jël. <laughs> waaw bi ma ñëwee Thiès bi ma koy jël sa ay bi ñu ma gisee dañoo kontaan ndax sama dayoo ak dayoom. Mhm. maanaam building nu ma toll ak ni ma toll ñu ne ah building dal na ji. dal na ci waaw ab ab ab cikili la jël te xamul ni Sidi Diatta wax na ko de <laughs> si Diatta si Diatta wax na ko de booy bi nga jël nii booy bu danger ngi nii mais mhm. building bàyyiwu ci xel. Mhm. nee naa ko building man maa ko xam mais xaw ma ndax man Kara man Thiès laa yoroo. bi may marché ambi laa laay dem di seetaan building kon xam nga loolu yàgg na boobu lu ndaw laa di marché ambulant di ko seetaan mm-hmm. waaw dama ko xam tam moo xaw ma newoon naa ko ne bu ñu bëree ba pare mm-hmm. ci ngay door a xam kuy caatu limousine waaw man maay borom top 5 mm-hmm. mais démb boobu yaakaar naa top 10 la de moom du top 5 ah, <laughs> nga jël combat bi ngeen bëri ko vraiment muy combat bu neex mais dañuy arrière tuuti ci ci ci ci ci ci carrière bi caatu limousine bi muy débuté ñëw ci làmb premier combat am mu dugg ci diggante laay gote ak ki nga xam ne mooy Ousmane Gandigal doon na journée bu neex nga bëri ci ak bu Kër Matar boobu di sa premier combat nga jël ko bëree ci daanu ci. <laughs> waaw affaire boobu nekkoon lu ma metti nekk. Mhm. sama premier combat laa ñaan ma ànd ak na ji a dee ma dem ma yaakaar ni làmba xeex kese mhm. may bëri koo xam ne maman am na ay cinq combats xaw ma mu mu mu jaay ma xelu mag daan ma nax ma daan ma. Mhm. affaire bi doon lu ma metti torop ki ma ci jógee ma dégg lu ne gars yi naan dafa teel a bëree matul mbër nangam nangam nangam man leen ma ma leen nañ ma jox mbisaan après ci lañ ma joxee mbisaan bu tiwaaw mhm. sama deuxième combat sa deuxième combat nga bëreeg moom ma bëreeg moom daan ko jël bu nga ko daane tiwaaw tiwaaw dëkkam laa ko fekk daan ko fa mhm. Mhm. nga jóg fa del nga ñëwaat Thiès deuxième combat mu ñëwaat Thiès maag saa ca dem xaw ma saa ca dem waaw ci laa daanaat saa ca dem waaw sa troisième nga jël karaañang troisième combat ma jël karaañang laa ko daanee mu doon combat yu am solo yoo xam ne bëri nga ko ci sa carrière mel ni Karañang Bisaan Jon tey jii ak fi ngay jóge ci làmb sa combat fi ngay kembo fii laay ngemboo ndax Kara man aw ma lu dul fii man fii mooy sama feer man ci daan jooy mooy sama fierté man tund bi tund Mor laa dama fi bëgg a lu fi lu mësul am muy roi des arènes loolu laay rêvé mais du ay bëri daan nii roi des laa bëgg a andi fii incha allah nu ñu nu ñuy dundee làmb waaw fii waaw bëgg nañu làmb fii jàppale mooy xaw a des rek ndax bu ñu amee combat booy dañuy bëgg a dem mais ñu dañuy suñu am njëgu ticket mhm. waaw autorité yi nañ ñu gën a jàpp xam ne ñun doomu cilaan lañu waa cilaan tamit bonne volonté yi dañ gën a jàpp ñu xam ne ñun cilaan rek moo ñu ñor cilaan rek moo ñu ñor du leneen ñun cilaan la ñu am mënuñu am lu ko sut ci àdduna fii mooy suñu feer na maanaam cilaan joor bi mhm. mais écurie kaay baax ngay ngay ngay ngay préparé say combat laay préparé waaw mhm. waaw tëngëj tamit aw ma seen pay quoi ñooñu dañ ma bëggal seen bopp dañuy sonn ci man maa ngi leen di sant bu baax surtout ment suñu waa écurie suñu waa écurie maa leen di sant bu baax a baax dañ ma teg foo xamante ni man kara xëy na ma sax foofu mais yooyu yëpp sant yàlla la quoi mhm. yooyu mbiri mbiri suñu borom la mhm. maa ngi leen di sant rawatina kostu Malick Combaan sama tons konaate maa ngi koy siyaar suñu président maa ngi koy siyaar di siyaar mbër yëpp képp koy takk ngeen bu kaay baax rek. Mhm. mais da nga écrit kaay baax. bi. waaw. instant yi mën naa wax ni écrit bi. wala amul tête de a bi rek yaay mm-hmm. ndax ñun ñëpp ñëpp a jubóo. génération la mm-hmm. ñun ñëpp jubóo mooy loolu noonu. Mm-hmm. te nekk na écrit boo xamante tamit mu ngi def ay performance ndax tegle nañu ngeen doo trois ans. di ko jël kon xam nga foofu ay ay ndaanaan a ngi fa meilleur écurie Sénégal ñu tegle ko trois fois kon foofu xam nga ni ñu ngi liggéey quoi masha Allah waaw yow ak ñan ak ñan a fa nekk waaw ñu nekk ay Albouri

ak Tony Junior tamit daa am combat. moom Mbaye Tine Junior moom Mbaye Tine Junior ñu ngi koy ñaanal ndam tamit. Mm-hmm. ñu koy ñaanal ndam bu baax a baax. Mm-hmm. kañ nga dugg Dakar ban combat nga njëkk a bëri Dakar. Ah, maa Papa Sow numéro 2. Papa Sow numéro 2 numéro 2 waaw. boobu mooy laa njëkk a mu nekkoon loo xam ne doon stade bu ndaw. sat boo xamante ni public bi bu yuuxoo rek yow mi nekk ci biir géew sax da ngay dégg mhm. mais comme que man a bëree di dama daan génn di mbapat yi mhm. loolu dafa ma perfection mhm. façon boobu ma koy jël sax ñu bëri yaakaar ne ma kaa daan quoi ndax boobu maa defet mooy loolu mais ma dem daan ko jël bu rëy quoi bi nga ci jógee nga bëreeg trompour numéro wala tapaate numéro la laa bëreeg kii nii soldat soldat waaw soldat bu Abib Ndiaye daanaatee après nga a trompeur waa trompeur numéro 2. muy sa troisième sortie Dakar yoo xam ne yëpp Iba Mar nga ko bëree. noonu la demee mm-hmm. nga nga daan trompeur mm-hmm. après ci nga bëree Taaw Anta mm-hmm. yaakaar naa waaw mu doonoon combat bu métti koo xam ne mën nañ ni xëy na mën nañ li la dal sa combat bi sax moo la dal parce que adversaire la boo xam ne daanoo gudd woon mm, taaw anta tegi la ay victoire te boobu bi ma koy jël moo ma ëpp foofu moo tax building gars yi naan ay taaw anta pourtant noonu la diisee building ëpp ko xëy na building moo ko surtuuti rek mais moo ab poids lourd la mm-hmm. te pourtant dama jàppande moom naxande bëreeg ba daan ko mm-hmm. Mm-hmm. daan ko taaw mu doonoon combat bu am solo ci sa carrière. noonu la demee rek combat bu xawoon a bëri coow. mais nga jóge ci bëre grand combat. bëre grand combat yow ak Cheikh Kayma. Cheikh Kayma waaw. Mhm. yàlla defal ñu ci ndam xam nga. mais boobu tam mu doonoon combat bu métti. waaw sa diggante doon sa dëkk. <laughs> sama biir dëkk waaw. sama président écrit dëgg ko. Mhm. nekkoon lamb ju bëri coow. Mhm. ma reyante ko di jaayante di jaayante ba yàlla may ñu ci ndam quoi. boobu di sa doonoon sa première grand tey nga jóge jëf jël sa deuxième grand combat arène nationale bëre ki nga mooy caatu Dalifor caatu mhm. caatu Dalifor mhm. mais combat boobu tamit xawoon na bëri coow waaw xawoon na bëri coow trop trop lan moo tax Tapha jël ay risque di yoo xam ne chaque jour bu koy jël dañ naan est-ce que ci génn wala ñu bëri sax sa adversaire la ñuy jox favori bëri na man boo dexel combat a bëre parce que sama adversaire ndax maanaam sama dayoo quoi maanaam réew ma quoi mais affaire bi maanaam mais mais est ji caat ni mu toll est ce que doole ji ëppul noonu. Ah, ëpp na noonu xam nga làmba ñun ay xale lañ kara xëy na yàlla moo dem mais ñun ay xale lañ làmba defaguñ fi dara boo yàkkamtee ba jël fi masse boo xamante ni tamit dalay lay handicapé après mën na la yàqal sa carrière quoi ñun ñun mooy loolu an làmba xam nga lan moo gën a entraînement ba wow kon contact. Hmm. contact mooy bee mbër da ngay contact bu oos. Hmm. boo jàkkaarloo sa morom mu yaakaar ni moo la ñu bëri yaakaar ni moom moo ma ëppatoo mais building ëpp ma doole. boo si boo jógee fi nga laaj ko ba xam booy bi am na doole wala amul doole. Mm-hmm. biñ biñ jàppantee xam na ni carrément maanaam booy bii liggéey na quoi maa gën a mm-hmm. bi mu diiree building sonn na taman sonnu ma. Mm-hmm. waaw nga jël ko bi nga jëlee caat euh, Dalifor daan ko. daan ko waaw après dañuy ñëw ci combat Thiès bi. parce que combat bi gis nañ mun nañ sa meeru dëkk lañ ko tudde woon Yves Lamine Cissé mun nañ ni bokk loolu bokk na ci li la gën a tourné nga ñëw Thiès tourné waat ma bëre Thiès ndax. combat bi ma koy jël boobu ñu may démarrer ay combat dakaar ay grand combat mais bi ma déggee maanaam drapeau maire la te ma ma yàgg a maanaam pour bëri drapeau maire ndax dama daan ñëw Thiès ay mbër yeneen mbër di ko bëri mhm. muy muy muy muy muy fanaan Thiès wala muy fanaan feneen mhm. ma ne ren bi li ma def ci làmb yoon la maanaam ma war a mën a bëree drapeau maire. nga doon mais nga doon bëri moo xam ni am na sens bëree drapeau Evlomi Ciss ñaari yoon waaw parce que bëri na ko moog Alaaji Gaynde perte ko tey mu ñëwaat bëri war koo bëri moo xam ne tey jii nii mën nañ ne buy ñëw moom maire bi ñooy ànd. billaay mhm. loolu lekkoon loo xamante ni loolu suñu ferte la quoi loolu dañuy di nuyuwaale maire ama di nga wax ni amuñu fayam quoi maire dañuy jàppale. dara mhm. maire Evlomi Ciss mhm. koy sant bu baax a baax démb bie yëpp la jënd képp ku jóge morlaa rek amul ku ci dagg ticket gratuit mhm. nga duggee stade bi yëkkati xaalis bu bari may ñu jëlal ñu ay oto kon kooku amuñu fayam démb bis bi mhm. dañuy dee rek mais ndam dañ koy ñibbiwaale billaahi mhm. drapeau moom mënul woon fanaan Thiès démb guddi guddi morola waaw moment bi nga dugg see ci stade lan nga yëg ci biir stade bi nga xool stade bi ni mu mel bi ngay diggee ba teg sa cumikaay moment boobu lan ma xam ni tey bisu tey bi xam nga sama bakkan laa ci teg ndam rek moo ma war ndax démb mobilisation fii tey na war kana fii démb dafa fees del xale yi grand yi maire yi ñëpp génn di ma ñaanal quoi xam nga loolu rek lu rëy la quoi amaana nit ñi defalu ma leen loo xamante ni maanaam niñ may taxawee defalu ma leen loolu maanaam mais maa leen di sant bu baax a baax maa leen di sant bu baax a baax dañ may jàppale waa Cilaan Joor aw ma seen fay de waa dund bi waa Bëyti waa Daaru Alpha waa Noto Guy Jama nga ñëw moo nga tuus bi nga tuusee ba pare sa adversaire moom moo la njëkk a tuus mais bi nga tuusee ba bi après mu tuus ba mun nañ ni bi yëpp mu nekk dëkkam tuus xëy na bu tuusee lu bari day wàññeeku ci ci biti tey nga yow nga ñëw war a tuus waaw mooy loolu ñëw ànd ak sama géwél yi rek ki ci mel ni grand baabu Ngom ak Karim maa ngi leen di nuyu au passage dina wax ni démb affaire bi jaar na yoon quoi démb Karam maanaam boo seetaanee sama tuus nga xam ni maanaam kii dafa ñëw ñëwee ak ndam tuusu ndam la démb démb tuus bi dafa ah, bi ngeen di tuuse ci ngeen di yëg ne maanaam tey jii nii dina dina baax boo xam da ngay xam ne carrément kii mu ngi ci la demee ngeen tuus ba pare ngeen dem nekk ci cumbukaay yi ba nekk ci dernier butéel yi nag bi ngeen duggee ci biir géew bi waaw pare rek boo pare nañ bopp bi yow pare su meew pare xam naa ne carrément kii dama koy daan c'est ñi ma àndal mën na am ñu tiit quoi mhm. mais man gëm naa ni maanaam karaa kii fii ba suba mënumaa daan nga teg say cummikaay ci biir bi ci biir géew bi ñu gis xëccoo am foofu noonu mel ni am na sa gàllaaj yoo xam ne dañ ko daw jël am na yoo xamante ko daw jël ko ñu yaakaar ne maanaam affaire bi affaire rek gàllaaj la làmba lii daan mbër du ñëw làmba mhm. mm-hmm. ñëw làmba lii daan mbër du ñëw làmba fan lay nekk foofu daal laa mën a yem ñoom affaire rek gàllaañ lañ ko teg mais du uh-huh. foofu uh-huh. foofu de uh-huh. ndax samay gàllaañ yu bari jël nañ ko mais teewul tamit daan naa leen voilà kon kon affaire bi du foofu affaire yi gëm sa bopp mais bi ñu jëlee gàllaaj lu wàññi ci yow dara man wàññiwul dara ci man wàññiwul dara ci man ndax Kara dëgg la mystique am na mais deuxième la ci la man dama gëm ni chaque jour rek daan mbër mi maanaam ci man lay jóge man loolu la loolu laa gëm man man caat après c'est que dañuy dugalal combat bi ñu ko bu ñu ko seetaanee pare ñëw jëf mbokk yi arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi li làmb nu ak li làmb bañ grand combat ñu ngi ci samedi le 6 mai fii ci hippodrome Ndiawma Koddu journée Sidi Diakhaté production la grand combat Thiatou Limousine kaay baax la jógee war a bëlde building bu Moussante quatrième édition drapeau Yves Lamine Ciss maire de Morolan première édition bi simple la woon Reug Reug moo ko jël luur bi combat léger bi Tony Junior jël ko deuxième édition bi Alaaji Gaynde jël ko troisième édition bi ki nga xam ne mooy Arobas jël ko quatrième édition bi dox ci diggante caatu limousine bu kaay baax ak building caatu limousine onze combats onze victoires deux défaites premier combat la daanu diggante laay goote ak Ousmane Gandigal malle bu Kër Matar a ko daan deuxième défaite am mi ngi ko jëlee woon ci diggante ki nga xam ni mooy naaru Sogas ak ambulance boobu ba léegi déggul mu mu dem Dakar bëre fa grand combat ak caatu Dalifort jóge ca bëreeg Taaw Anta bëreeg Cheikh Kayma bëreeg Torompor numéro 2 bëreeg Tafati numéro 2 noonu moo daan ambulance e xeex ñoom ñaar building naaru so building caatu limousine xeex xeex building caatu limousine xeex. Eh, Building li Limousine xeex daw jàppante daw jàppante jël na ko Thiatou Limousine jàpp na diggante Building Thiatou Limousine daw nañ jàppante ñoom ñaar Building li Limousine diggante Building Thiatou Limousine baa du la fàq baa du la fàq moytul de mu fàq la moytul mu ba ca xabal ba moytul ca xabal ba building caatu li ma building day dépenser effort bu bari caatu li mu sin fi mu nekk bëre bi lay wut building xeex bi c'est trop fi mu nekk li muy dóor moo bari dafa war a ne tekk fi mu nekk liggéey li muy liggéey li ma la doon wax sànq moo il faut liggéey ci xelam bañ a topp góor yi. mais xale bi combat miin na combat légitime. waaw mu miin na ko moo tax fi mu nekk bu fekkee ne daf ko bëgg a ba mu nekk Kara du demee noonu fu mu nekk tey ki nga xam ne mooy building dafa gëj ci combat. kon effort yi su dee dépensé énergie yu bari mën nañ koo fàq mu wàcc wala dara ndax caatu limousine mu ngi liggéey am loo xam ne su ko ko jekko sootul géem loxo dem gémmiñ te du yóbbaale tibb diggante building caatu limousine père Baba moo wax loolu père Baba Camara xeex ñoom ñaar diggante building caatu Limassine diggante building caatu Limassine building ma ngay door building ma ngay door fàq na ko caat fàq na ko building ma ngay door building a ngay door building a ngay door building a ngay door eh building caatu Limassine xeex xeex building caatu Limassine ba kaawoo du am eh bëri nañ xeex nañ bëri nañ xeex nañ building maytul xale bi fi mu jàpp de fi mu jàpp maytu ko de des fois mu tiire des fois mu tiiree loo ko waaye caatu li moytul building boot kat la loo ci wet gi moom woot la building a ngi noonu nee naa la moo daan ambulance daan ay dara karaara daan suwal mil mag mi noonu moytul caxabal ba de moytul ma caxabal bi de diggante building caatu tege nañu saaku yi saaku yi fekkuwu leen ñoom ñoo fekk saaku yi caatu limousine ak building caatu limousine fu mu nekk caatu limousine jàpp na building benn loxo moo jàpp benn bi jàppul caatu limousine di liggéey building di ko déglu fi mu nekk ba léegi building moom xeex bi la jëlaat delloo woon na. pàq na ko pàq na ko daw jargandaloog moom weñ ko génn ci biti.

arbitre bi soufflé waat na génn seen diggante soufflé na génn seen diggante arbitre central accident de yees dooy ñu jonkan di xool ñoom ñaar delloo waat nañ vingt et une heures trente cinq ma ko du jóg diggante building caatu Limassine quatrième édition drapeau Yves Lamine Ciss maire de Morolan organisé par Sidi Diakhaté production ñu ngi ci samedi le 6 mai xeex ñoom ñaar daw na yoor jël tànk ba diggante Building Thiatou Limousine daw jargandoloo ñoom ñaar Building Thiatou Limousine diggante bi dóor na ko tànk lool daa sori daw jargandoo weñ ko rëpp jogaat ña nga ca suuf Building Thiatou Limousine eh Building Thiatou Limousine daw na jël ko Building jël na ko Building jël na ko Building jël na ko Thiatou Limousine ma ngay jàpp jàppagul diggante Building Thiatou Limousine eh li Thiatou Limousine diggante bi liñ caatu li ma si. combat peex na xeex nañu bëre nañu waaye buñ ko forcer fi mu nekk. mais am na soo bu ma gisee peer. waaw ban la ci mooy bi bi bi caat wàccee. bi ba bi lim la waaw mu wàcc. dóoru dépose ah jege nañu. Ah. ah jege après ñu visionné. Ah, ñu xool ba xam après ñu visionné. ñu xool mais comme que ci biir action bi la fi mu nekk te Ibrahima Ngom a ngi toog yeesa ngi toog fële ak beneen assistant te ki nga xam ne mooy Dramé ngi toog arbitre international bi. xam naa ne lu ci kanam rawuti bët. waaye am réflexe dafa am solo ci mbër. ak am solo. oyof am solo ci mbër. ak am solo. te booy biñ ko ko dóoree dañuy bëre jóg. ndeysaan laajal ci booru Anta Gueye keroog ba muy gën ak ki nga xam ne ndeysaan mooy Cheikh werante ba ca la nekkoon réflexe ca la fa la feeñee ndeysaan kii naan naan ma daan kii naan moo moo ma daan waaye Modou Anta moo mujjee jël ndam la ca Cheikh Niang. diggante building ak caatu limasin bu kaay baax ñu ngi noonu ñoom ñaar bëre nañ xeex nañ. fàq na ko bëgg a jaar ca Falaye building ba lege ko léegi nag condition yi dox waa léegi condition dox de neewoon naa la ñu xaar cinq minutes yi kenn ku ne li mu feeñ léegi lay feeñ nag léegi la day doon nooyi bu méttee de mais dafa mel ne ki nga xam ne mooy caatu limousine moo bëgg diriger combat bi moom daa min combat yi nag parce que combat bu mel ni bëri na ko Cheikh Kayma caatu Dalifor bëri ko Tawanta ak Trompeur numéro 2 waaye building combat bi bëri na ko ak Gaynde bëri ko ak Boy Jaxaaw na ko comme temps fu mu nekk comme liñ la doon wax rek naan baykatu ya euh, dugal tool dañoo xamul ndegam ma nga woon ca tool yi am déet waaye bu nekkee ca tool yi mën na continuer def ko comme na mu defoon moom ak ki nga xam ne moo doon booy jaxaaw combat bu metti bu mettee metti ba euh, au finish mu def benn erreur am ci jël diggante building caatu limousine si Sidi Diakhaté production la samedi le 6 mai caatu limousine digg a lu muy liggéey kara mi ngi noonu lan lay tante lan lay tante lan lay tante caatu limousine na moytu caxabal bi de waaw lépp a ngi ci na moytu caxabal bi de teeru ko jóg ca kaw daw jarganam waaw waaw ndeysaan jóg tiire ko na moytu loolu waaye loxo loxo loxo caat ba ba mu waaye building fi mu nekk nii jàppam baax na waaw dafa jàpp déglu ko mhm. ah, waaw dindi na loxo ba building ma ngay door dindi na loxo ba topp ma ngay door toppaat na góor ya bàq na ko jarngandaloo ak moom ña ngay jarngandalu building building caatu limousine building caatu limousine building caatu limousine bëtt na ko lonk na ko caxawal daan na ko jël ba rëy na oh caatu limousine oh caatu limousine ndaanaan la daa a bëree oh ndaanaan la daa mën a daa mën a bëree caat ndaanaan la daa mën a bëree daa mën a bëree oh building a ngi noonu jaatu li machine daa mën bëre lu bëree na ngeen daaw noonu ci biir xeex bi mu dugal ay épis yoo xam ne yëpp ñu doon dal waaw ah, am na yéen daal yu bëri sax bi li ma soxoor de bi li soxoor la mu soxoor la gis gis naa ko laa ilaa mbër mu ragal du ko daan de waaw ah? ah, faaw nga ñime ko doo mën a daan faaw nga tey lekk sa bakkan ba pare door kaa mën a daan waaw maa ngi koy encouragé quoi di ko wax ni suñu garant la quoi di ko wax ni xam nga bu amatee combat yàlla na ko yàlla may ndam quoi sport la xam bu jeexee rek jeex na quoi waaw mais ci biir xeex bi mel ni moo la ci a avantage ndax moom bëre bi xeex rek la ci am te building daa ko ma xee sax mais démb dañ maa yeb ni maanaam caat dalal bis bi yéen ka bis bi maanaam nga mel ni ku ko ragal mu jàppante ak moom boo jàppante moom nga bëri moom daal loolu lañ ma yebee quoi moo tax bi ma ñëwee démb damaa ci biir jàppante bi ñu gis nga dugal sa loxo ci ngemb daw fàq ko mu ñëw nga mel ni ko koy nooju mu mel ni dafa xaw a diis moment waaw dafa diis moom mhm. dafa diis quoi te aussi tamit bariwul suuf bariwul suuf waaw parce que bi ma ma ngi naan géew gi karaté ba bu def bu nekkoon arène nationale mhm. combat du egg foofu ndax am na rotation xam boo koy def ci géew gi rek di daanu loolu maa maa ngi ciy woo waa Thiès quoi maanaam géew bi nay bëri suuf quoi ñu dolli ci suuf ñu dolli ci suuf bi ma a maa ngi koy wax alaaji Moustapha maa ngi naan ko géew bi a xaw a manqué suuf surtout côté bi féete na le trop sax waaw côté bi féete woon fi ngeen tege bi côté boobu suuf dafa manqué mhm. am na am yooyu def rek mhm. mën nga def faux pas daanu tarxiis mhm. mooy loolu waaw ñu gis ngeen xeex foofu yéen ñaar daw bëre jaxasoo bëre bu jaxasoo foofu yéen ñaar mu daw jël la nga dóor ko tànk moom tam mu remplacé la waaw daw jargan na loolu la tànk waaw foofu action bu fi am da nga dóor sa kii bi sa sa épaule bi moom dafa yaakaar ne foofu man daanu naa quoi mais boobu sama loxo bi mhm. mu ngi ci défendir bi après ci laa kii waatee mhm. jóg quoi bi ma jógaatee ne ci laa taxaw quoi loolu lan moo koy maye waaw entraînement rek enterrement rek. parce que foofu da nga def réflexe bu gaaw bu gaaw enterrement rek ak vigilant quoi. Mm-hmm. ndax lépp lu may def rek maa ngi koy xool quoi. Mm-hmm. waaw teewul li nga combat bi jaaxasoo yëpp yaa ngi am lecture de combat. Mm-hmm. am lecture de combat waaw. loolu yëpp ak mën a bëri karaa li ma war a bëri dëgg bëreeguma ko. war a bëre dëgg bëree gu moom mhm. foofu ñu ñu gis ci biir xeex bi yéen ñaar mhm. benn moment boo xam ne mel ni yéen ñaar ñëpp a joxe lu bari taxaw dégloonte mais ngeen dégloonte benn deux minutes trois minutes mhm. nga daw déplacé ko di jargana loog moom di wëndeel moom foofu noonu foofu jaxabal bi nga doon xool wala boobu foofu la doon xool boobu sax xooluma jaxabal sax mais boobu dafa taxaw ma peese ko dama yaakaaroon maanaam day ñëw man pour mu taf ma plaqué ma ma mën kaa remplacer mais instant boobu nag dama gis ni mu taxaw quoi ma ne kon xaar xaar ma def déplacement wu bi ma def bi ma orienté rek gis tànk bi lalu nii ma ni fii boo fa roofee ca xabal bi day jeex te moment boobu noonu mi ngi jël loxom di ko yóotu di ko jàpp boobu wala gennu rek lonko fu ko mu jaaxaan dafa dafa tiit sax mu jaaxaan waaw dafa tiit hmm? waaw jël bi da kaa bett bi mu daanoo noonu waaw bett yaakaar ni ndax bi ma ko jàppee koso bi mu ngay naan moytul jaxabal bi moytul jaxabal bi mais bi mu ngay jaxabal gisu ko sax kon mel ni coach moom moo la a liir voilà moo moo moo moo ko gën a sax liir mhm. mais mais mais loolu dafa mel ni comme da ngay jël combat souvent dafa am mbër yoo xam ne dañuy jël combat te duñ maîtriser mooy li ma la wax sàngare maa ko xam ne xaw ma sam newoon naa ko bu ñu bëree ba pare ci nga may door a xam tey bëree nga am ndam sa diggante ak mën nañ ni ñaata limousine am na ñoo xam ne xawoon nañ ko umpile Thiès mhm. parce que même fi nga doon jaay sax des fois mhm. buñ ne am na combat buñ ne kim jël dañ naan mooy booy bi doon jaay bi doon jaay <laughs> waaw di Fadou di nuyu sama gars yi ne mbëkkante quoi mhm. Maguette Ba ñoom Alaaji Su ñoom Gisa Jaañ ñoom Habib xama ñoom Maoda ñoom Yusu ñoom Lamine xama rokku bi daal bàyyiwu moo fa kenn daal bàyyi ma fa kenn mel ñu bari amuñu woon chance maanaam seetaan la chance maanaam seetaan dama daan bëri Dakar ñu ne ma gars yi dañ may wasa naan ma caat del ñëw Thiès bëri surtout ma Modou Modou Morolan mm, Modou sonn na ci combat bi bu baax a baax Modou baax a baax Modou bu combat bi taxawee <laughs> mm-hmm. bu ma gënee bëgg a bëri Thiès mm-hmm. dama daan wax mbër ñëwal Thiès bi combat bi taxawee nekk lu ne la daan dégg ci maquette bi mm-hmm. billaahi combat bi moom laa ko doon bëreel démb. ko doon bëreel waaw. maa ngi bu baax a koy sant bu baax a baax. léegi am nga ndam. am naa waaw. da ngay lancé bi da ngay waat Thiès wala da duggaat biir Dakar. waaw ku ñu làmb booleel rek. ndax Thiès moom xes na cee bokk ba pare quoi. Mm-hmm. waaw ndax suñu raison la quoi. Mm-hmm. mënuñu am lu ëpp raison mm-hmm. amee combat Thiès ku ma làmb booleel damay bëreeg moom bu ma amee combat Dakar tamit noonu. yan adversaire fi mu toll nga yaakaar ni boo doon bëree Thiès mën ngaa bëri. ah Thiès xool leen rek man moom du ma du ma sibile kenn quoi mais ñi ma làmb booleel. xam nañ quoi. yaakaar naa ñi fay ñi fay toj yëpp. defuñ ci làmb lu ma deful. loo deful ñi fay toj instant bi mm-hmm. defuñ ci làmb lu ma deful. xale laa mais def naa quatorze combats. quatorze combats douze victoires deux défaites victoire deux défaites. néew na sama morom bu ko def bu ko def ci làmb sant yàlla bu baax ne. Mm-hmm. lépp mbiru suñu borom la mais amaana du suñu mën-mën. Mm-hmm. mbiru yàlla la. mais comme que tey jii ne dañoo ñëwoon seet si la ñu bàyyi nga santaale ñi nga xam ne ñoo doon jàpp ci làmb yi ak ñi nga xam ne tey jii nii jóge woon nañ fi nga xam ne mooy caalaan ñëw seetaan si la. Mm-hmm. waaw avant tout damay sant mbooloo mi quoi ñii ñooy samay nit ñooy la aw ma seen fay quoi ndax waa dëkk bi mbaa bi taxawee ba léegi muy xale muy mag ñëpp sonn nañ ci di nuyu borom dëkk bi chef de village bi Baye Lamine Thiombane ak imaamu dëkk bi Serigne Oumar Thiombane sama maam. sant sama papa Mbaye Combaan bu baax a baax sama papa Mbaye Combaan boo aw ma fayam boo daf may taxaw fu ne may ñaanal bu pare yëkkati xaalis bu bëri jox ma kooku kenn la ci man maa ngi sant bu baax a baax sama papam maa ngi sant bu baax a baax sama yaay maa ngi sant bu baax a baax sama maam sama maam maa ngay ñaanal fi mu tëdd àll na suuf oyof ci kawam sama maam bu jigéen kooku karaam moo ma yar dafa sonn ci man sama maam bu jigéen sonn ci man kay ñaanal kay mm. ñaanal bu baax a baax waa ànd ak jàppalante maa leen di sant bu baax yëkk nañu yëkkati nañu xaalis yu bëri jox ma waa ànd ak jàppalante maire Maguette Mbaye yëkkati na xaalis yu bëri jox ma grand Badou yëkkati na xaalis yu bëri jox ma ak grand Deef grand Mourou Ngoni grand Mombaas grand Mbaya Ubu koo aw ma fayam maa ngay sant bu baax a baax grand Mbaya sant bu baax a baax di sant sama staff bi ndax ñooñu ñooy caatu limo caatu limo waaw ñooñu dañuy sonn ci man kara booy mooy sama booy yi mais ana sa turandoo sama turandoo mu ngi fa mu ngi ci sonko mm. doon na ma woo mm. ah boo amee combat a mm. ngi déggante ñu ngi déggante ñu déggante déggante sama Babacar maa ngay sant Aliou Omar Mbenga Baye Ngom Abdou Fall Gaynde bu caat Omar Ndiafoum Omar Mbenga Modou Maram képp koy sonn ci caatu li ma rek maa lay jàppale képp kuy jàppale mm-hmm. caatu limousine rek caatu mi ngi lay sant bu baax a baax suñu suñu mm-hmm. Isa waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax day sonn ci ñun Isa yaa baaba waaw suñu grand suñu lépp la ñun buñ bëggee ba tey yàlla ak ñoom la mm-hmm. ñu di sant bu baax a baax a baax waa dëkk bi yëpp xale yi waa waañ bi jigéen yi waa waañ bi jigéen yi aw ma seen fay ak maire yi aw ma fay ñoom këlëm samp sama champion bi dama ko bëgg a andi Thiès. këlëm waaw maa leen di sant. waaw këlëm gis nga ñeme na affaire yi. <laughs> sama rakab ba alba ah, waaw boobu ba léegi maa ngi ko dégg muy wax rek. <laughs> ah dem moom yëngal na sax. champion la ah, <laughs> dem moom bilim bi maa ko gis muy bilim la saf sap. Ah. sama rakab ba alba. Uh-huh. yëkkati na xaalis bu jox ma. koy ñaanal bu baax a baax ni mu bëgg ci àdduna maanaam moo ko xam quoi mm-hmm. yàlla ko yàlla suñu borom def sama rakk yi ne ci kër gi yëpp ñoom jàccaw ñoom Mbay Penda ñoom Seexu Umar ñoom sëñ Malick ñëpp yëkkat nañ xaalis jàpp ci affaire yi mm-hmm. ma seen fay waa dëkk bi nekk aw ma seen fay kara mm-hmm. ci laan joor rek moo ma ñor fii nii dama fi bëgg andi lu ne waxuma la cadre roi des arènes rek mais li ci kanam ay bët quoi maa leen di sant di sant tundu Morla bi yëpp nga baal ma tuuti moo wax ci séeréer waa waaw mais waroo koy Morlaal tout i dalaa dañ ñeexeb nii loofe nii Pambal bëyti bëy bëyti bëy luxus bëy daaru alfa bëy ciraan bëy ciraan tàngoor bëy góob tout mais dun santaro bu baax moo tax bu baax a baax a baax képp ko may ñaana lekk sama maara ñëpp maa leen di sant bu baax a baax waaw di sant ñëpp seen moor xay jagal Lassa Ngor waaw ñu ngi lay bégge tamit gis nañ sa taxawaay maanaam di sant ñëpp daal ñoom jibi ku ma limul lekk na xam ni daal maanaam mooy lool noonu ñëpp rek ah. waaw mhm. xale yi jigéen yi mhm. waa waañ bi sama rakk yi ñëpp maa leen di sant bu baax ak sama papa bi ne jigéen ba muusi maa ngay sant bu baax a baax ak Pan Mbenga Pan Mbenga maa ngay sant bu baax a baax waa Tëngéej ji tamit mhm. aw ma seen fay waa Tëngéej aw ma seen fay jolof jolof yi maa leen di sant bu baax a baax waa kër sama maam bu góor artiste sama maam bu jigéen sama tante bi ne tënge ci karaa koo ama fayam koo mu amee combat da ciy sonn sama lépp la sonn na bi yëkkati ay xéwal yu bari jox ma kon maa ngi koy ñaanal maanaam yàlla koy ñaanal bu baax a baax maa Gueye Thiès maa ngi koy sant waa ci ñoom Modou Mbaye ndugub ndugub bi may añee Thiès lay jóge waa nduguma Modou Mbaye ñoom Malick bàyyiwuma ken ñoom Gise Jaañ ñoom alaaj Yuusu waa ruq ba yëpp bàyyi ngoom gatiso xama ñoom grand mbay woon maa ngi koy bëgg bu baax ay Moussa Morla Moussa Yacine ñëpp 100 pour cent Morla bi gis naa seen taxaw gis naa taxawaay 100 pour cent noto bi tamit maçon spécial waaw di bëgg ñëp waaw di bëgg ñëpp jaajëf jaajëf caat gis nga ñu ngi woon caaraan caat limousine lañ seet si woon mu jógee ci victoire bu am solo diggante ma ki nga xam ni mooy building bu musante comme niñ ko waxee sàng yaakaar naa caat moom doonatul bi ñuy présenté ci làmb parce que ndaanaan la champion la mi ngi bëre di am ndam kon di ko jaajëfal bu baax a baax baax di wax waa dëkk bi ñu jàppale ko bu baax a baax parce que champion la ndaanaan la te bërekat la te heure bu jógee couleur dëkk bi lay défendre heure bu jógee turu dëkk bi lay bëgg mu yëkkati ku jëm ci kanam kon kooku